waaw mbokk Sénégal yi dëkk fii ci Italie seen xarit Baye Diouf mooy dellu si tey di waxtaan ak yéen ci mbirum li ñuy wax assistance légale assistance légale nag suñ koy wax mooy euh, euh, surtout suñ xel mu ngi dem ci avocat mbirum avocat mbirum avocat nag tey mbokk yi laa leen bëggoon waxtaanal tey ndaxte gis nañ ay coono yu ci am ñun doomi Sénégal yi nekk fii ak xeet googu ñuy ooyee eh, xeeti liggéeykat boobu ñuy ooyee l'avocat avocat coono yi ci am ñàkkul ne une partie si ñun la jógee ñàkkul ne aussi eh, yeneen partie eh, ci ñoom la jógee mais balaa may dugg ci waxtaan boobu dama bëggoon rek indi leen benn leeral ci avocat ni muy liggéeyee ak lan moo war a nekk liggéeyam di wax ne avocat du liggéeyul pour nguur gi nekk lu fi nguur gi liggéeykati boppam la li ñuy wax auxiliaire de justice maanaam moom day collaborer ak justice waaye studio boppam travailleur autonome la boo xam ne liggéey boppam lay yore ñuy muy libre professionniste ba noppi di offrir service am euh, euh, euh, privé yi maanaam nit ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyloo ñoo koy fay di ci indi rek euh, benn leeral aussi moo di ne avocat yi euh, fii ci Italie wax dëgg yàlla sakkan nañ dañuy wax ne sax parfois ne Italie moo ëpp avocat sax dëkk bu mel ni France wala Allemagne wax ne avocat tamit dafa am spécialisation spécialisation avocat amul benn avocat boo xam ne day def lépp parce que xam ngeen ni ci mbirum yoon yoon yi dañ cee bëri am na lu ñuy wax euh, yooni pénal amna na wax yooni civil amna amna amna na am na yooni yooni affaire eh, droit des affaires affaire amna na dal dañu daal mais ñun doomu sénégalais yi nga xamné ño nek fi ci Italie euh amna sax spécialiste eh, avocat spécialiste immigration nga xamné ñun ñi nek fi ci Italie ñom ñoñu ñu eh, gën ñooñ ñoom gën faral di jokkalanteel euh, di leen wax rek ne euh, euh, avocat dafa war a am diplôme ba noppi ñu reconnaître ko mu inscrire ci benn ordre bu ñuy wax ordre des des avocats waaw fii ci Italie avocat bu binduwul ci benn ordre des avocats ordre des avocats par département par région par ville am waaw Milan am na ordre des avocats Rome am na ordre des avocats Naples am na ordre des avocats presque waaw léegi nag yàlla sax dafa may léegi avocat bu ngeen di séqalanteel su ngeen duggee ci dëkk bi gis ordre des avocats euh, dañoo am site soo defalee turam da nga xam ndax kii avocat bu inscrire la wala déet waaw ñu bëri nag ci dëkk bi dañuy oote seen bopp avocat te wax dëgg yàlla nekkuñu ko ñàkkul ne euh, dañuy collaborateur d'avocat mais avocat moom da nga war inscrire ci ci ordre loolu wax dëgg yàlla lu ma waroon leeral ñaareel ba moo di ne avocat dafay am mandat mandat waaw li ñuy wax mandat maanaam yow da nga koy signeel ne ko moom mën na la représenter pour défendre la waaw feeg loolu amul avocat bi lenn mënu ko def pour yow ñaareel ba dafa am parfois li ñuy wax avocat d'ufficio fi eh, fi ci Italie avocat d'ufficio maanaam avocat d'office maanaam surtout nag ci mbirum pénal boo xam ne euh, dañoo obligé euh, police bi euh, suñ jàppee nit balaa ñu koy euh, suñ ko arrêté dañ koy euh, d'office dañ koy jox ben avocat avocat bobu liste le boo xam ne ci police yëpp dañ koy yore liste boo xam ne dañuy tànn kenn rek ni kii mooy sa avocat avocat d'office avocat d'office nag euh, wax dëgg yàlla yo yaay war xam ndax avocat bobu doy na la su fekkee ne avocat su fekkee ne da nga am beneen avocat boobu la ñuy wax avocat de fiducia manam avocat de confiance boo xam ne comme ce docteur ni mu lay toppee noonu la lay toppee su yow avocat d'officio bi nga bayiko ko jël sa avocat de fiducia moy avocat de euh, de confiance di wax ne avocat d'officio nguur gi mo la koy mo koy jox nit su fekké né arrêté nañ ko wala nek na amna ben problème pénal ba téyé ko wayé nak dañ xamné avocat d'officio nekul ne nguur gi mo koy fay waaw avocat d'officio ki nga xam ne euh, moom lay defendre kooku frais yi nekk ci liggéey boobu yëpp moo ko war a fay parce que loolu erreur bu bëri day am nit ñi di ko jaawale parce que dafa am leneen nag lu ñuy wax euh, patrocinio euh, de lo Stato maanaam nguur gi fii ci itali day par képp koo xam ne da nga nekk ci yo ñu téele ci yoon nga am ay procès te yàlla def na sa am am tuuti dafa am benn demande boo xam ne da nga koy def pour état bi jël xaalis fay xaalis bi ci war yëpp mu fayal la ko loolu nag euh, euh, wax dëgg yàlla euh, lu xaw a jafe la parce que il faut nga am liggéey ba noppi wane ne sa sa revenu bëriwul waaw te pratique yi normalement sooy def ñu bëri dañuy dañuy bëgg di def demande bi mais dañuy gis ne sax avocat yi parfois loolu ñàkkul ne du leen intéressé parce que procédure bu mag la te yow te avocat bi day soxla xaalis moom immédiatement su commencé sa procédure rek pour euh, pour mën ci euh, liggéey waaw donc te gis nañ ne ñun étranger euh, procédure boobu wax dëgg yàlla dañu ci xajalul trop ndax ñàkkul ne liñ nekk gan ci dëkk bi moo tax donc avocat kon nag mbokk yi li nga xam ne mooy liggéeyam li koy ki koy fay mooy ki nga xam ne moo ko jël mu koy defendre yàlla nag dafa def ne tarif avocat yi wax dëgg yàlla kenn xamul nu mu nu mu tegoo waaw amul fenn document boo xam ne dañuy comme <laughs> jaaykat yi eh, boutique bi wala kuy jaay négoce da ngay am sa tarifario euh, da ngay am sa liste tarifaire mais avocat yi yàlla def na wax dëgg yàlla euh, fii ci dëkk bi kenn mësul dem ci bureau avocat ba gis fa liste tarifaire xam liggéey bu nekk ñaata lay laaj gis nañ ne aussi euh, wax dëgg yàlla seen li ñuy demande ñu koy wax honoraire waa seen honoraire Euh, parfois fi ci dëkk bi euh, waxuma ne day day cher mais day ëpp loxo ci suñ mën-mën ñun doomu sénégalais euh, yi nekk fii ci Italie ñun immigré yi nga xam ne fii dafa nekk ci Italie ñaareel ba moo di ne di leen fàttali nekk avocat amul lu ñuy wax obligation de résultat moo di nekkul ne dang ne dang koy fay pour mu bañ laa tëjlu pour pour mu libérer la loolu loolu amul obligation de résultat ma nekkul ne dama koo fay mille euros rek dama bëgg li ma bëgg mu am ko

donc loolu laa bëggoon euh, indi tey di leen wax ne loolu wax dëgg yàlla lu métti la luñ luñ luñ gis ñaareelu affaire bi moo di ne mbirum avocat dafa xaw compliqué parce que mbirum xam-xam la mbirum bopp la euh, parfois comme suñ mbokk yu ci bëri seen italien yi wax dëgg yàlla euh, doy na waar ku mel ni comme suma italien parfois ngay dem ci italien ci avocat mu lay wax italien di la wax ay termes techniques yoo xam ne italien yi fi dëkk sax parfois suñ fa demee duñ comprendre lan la euh, lolou wax deug yalla nek na obstacle su suñ relation euh, ak ak ak avocat yi parfois euh, dinaay dinaay def man li wax médiation légale pour expliquer lu avocat bi wax ñu tekkil ko suñ mbokk bi pour mu comprendre waaw mais nak lolou wax deug yalla liggey bu war am la suñ ci suñ communauté bi looloo tax ma doon xelaat ba noppi jot naa ci waxtaan ak suñ njiit muy madame le le consul di ko wax ne nécessité la wax dëgg yàlla pour que euh, euh, au niveau du consulat ñu am benn cadre juridique nee na ma loolu lu am la monte am na benn service bu ñuy wax cadre juridique foofu nga xam ne dafa am ci ay collaboration avec ay avocats waaw xanaa rek euh, li may ñaan rek moo di mbir moomu service boobu ñu gën koo defar gën koo développer parce que ci yoon waxtu wi ñu jëm nii ci moment yi ñu jëm nii problème ak questura yi wax dëgg yàlla dinañ bëri waaw parce que xam ngeen réew mi est yi muy am te képp koo xam ne euh, surtout nag ci mbirum permis de séjour nga xam ne euh, questura bi su rejeté sa kër euh, sa sa permis de séjour wala mu révoqué ko yow mën nga ñëwaat jël dem dem ak moom tribunal pour wane ne peut-être ñoom dañoo juum te loolu nag avocat yi ñoo koy toppatoo avocat yi rek ñoo ko mën a def keneen du ko mën a def donc di ñaan rek sun autorité yi muy le gouvernement mu mettre ay moyens pour que doomi Sénégal yi nekk fii ci Italie ñu taxaw leen au niveau des des des tribunaux waaw cadre juridique bobu consulat di wax euh di leen ko yëg rek parce que euh, man mom la waxal mu wax ma ne mettre nako en place li ñi ñaan rek mo di ñu gën ko renforcer pour une une chose euh, mettre euh, mettre comme ni ko Rome ambassade waxé won dans Rome nekkul ni ambassade wala consulat ñoy fayal nit ñi avocat mais nak doon rafet avocat euh, consulat bu Milan wala ambassade bu Rome euh, pour que avocat yi ñuy am ñu jéem waxtaan ak ñoom pour xool seen tarif yi seen honoraires yi ñu wàññi ko pour di boole nit ñi ak doomu sénégalais yi ba noppi nag agent consulat yi di toog pour suivre dossier yi ak avocat yi di expliquer euh, sun sun mbokk yi parce que loolu comme ni ma ko waxee rek liggéey autorité diplomatique rek moo ci mën indi ay ay ay résultats waaw mbokk yi wax dëgg yàlla euh, euh, dama doon ñaan ëllëg consulat yi wala am ambassade yi mës nañ ko mës naa ko wax ci suma benn euh, vidéo bu njëkk que consulat yi yi am ay fonds ay fonds yoo xam ne dañuy taxawu nit ñi ci mbirum assistance légale waaw ku amul dërëm liggéeyoo pour nga jël avocat day métti te soo amul avocat moo di yow sa dossier tëj nañ ko jeex na waaw loolu nag Euh, même avocat yi dañ nan ko amul ci bi avocat bu ci Milan ko wax ko ci Facebook bi ne ko amul fi ci réew mi mën défendre sa wax immigré su ko Sénégal lay du ci ci Italie am-am am su ko gouvernement Sénégal taxawul immigré organisé pour xol nan lañuy yu parce que gis ngeen la xew ja nekk Firenze euh, te wax deug yalla ñu jiñoon ko gis ngeen presque plus de vingt mille euros ñu ngi ko koy laaj pour mu mën défendre boppam lu ko moy 30 30 années yoy ñu tëj ko ci mom lay mom lay teud donc mbokk yi wax deug yalla li yéene la rek ak xelat bo xamné Euh, il faut que problème bu nek ci communauté bi ñukoy wax bañ ko nëpp nëppal di ci waxtaan ñakul ne Euh, suñ booloo xel yi boole am-am yi boole mën-mën yi ñàkkul ne problème yu bëri di dinañ dinañ dinañ ci gis euh, euh, solution. waaw kon nag loolu wax dëgg yàlla lu ñu war régler la benn nit mënul ñaari nit mënul waaye mbooloo ànd liggéey ànd ak muy consulat muy ambassade muy association yi ñu ànd liggéey taxawal loolu parce que tey wax dëgg yàlla ku gaañu ci àddina bi ñu dajaleel la. Euh, euh, soo amul assurance ñu dajaleel la yóbbu sa koor waaye nit nag da nga koy dimbale ba ba muy dund waaw ba ba muy dund duñ bàyyi nit ba muy dee rek ñu dajale ko nit ku am problème dañoo war dajaloo association yi consulat yi daayira yi wax dëgg yàlla di dajaloo am benn fond boo xam ne bépp sénégalais bu nekk fii ci réew mi te loxoom jotul ginnaawam su amee problème mu am lu ko fi taxawal parce que li arrivé kenn mën na arrivé ñëpp question d'intelligence la rek ak question pratique mbokk yi bëgguma yàgg ci waxtaan wi xanaa liñ ci mën a wax bëri na xanaa rek di leen jox euh, euh, ubbi waxtaan wi rek di leen jox rendez-vous euh, beneen yoon jërëjëf seen xarit Baye Diouf depuis Milan jërëjëf.